الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جنا بن سنت sant yàlla julli si yonent bi loxo ki nga xamante ni tey moo fi teewal xadara Malikia bi yëpp di sëriñ Moustapha Sy di sëriñ Mor Jàmm Sy ñu koy wàcce wàcce waaye di a baax nga ne tey ñoo aaya ñu ne gaamu nekk wàcce waaye membre yëpp nag kaw ba suuf bàyyi wuñu kenn wax dëgg yàlla taxawaay rafet na am nañu mbégte loolu su ko defee rek te gërëm tamit ki nga xam ne tey moo dëgëral bis bi nga xam ne tey moo bi di yàlla mu am taxawaay bi rafet bu mu taxaw ñu ngi nii lu toll nag deretu deretu Seydi Hadji Malick lu ko ci ñu ko tiwaawoo pare lépp lu ci mu def ko wax dëgg yàlla jar sant jar na gërëm ba pare gàmm gi nga xamante ni tey ñu lépp lu ci war tamit mboo mu def ko tamit tey moom si boppam mi ngi am programme mais dafa bàyyi otoom yëpp moo dem mu mu wut pexeem bàyyi oto yi programme bi te loolu lépp dëgg yàlla nit ku am fu mu teg rek moo la koy defal donc ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla gudd fan bu ànd ak wér ak wér di ko ñaanal tamit njabootam yëpp ndax ñi dina bëgg dara sax te njabootam di ko waaye moom macha allah ni mu bëggee diine ni mu bëgg di dimbalee doomu aadama rawatina man mii di wax ak yéen noonu la ma njabootam yëpp bëgg ñu ngi sant njabootam yëpp waaye tamit bu ñu tamit di wax Kër bi ñu ne Kër Tamba bi groupe moom boole na yëpp bu def liggéeykaay bi yëpp waaye foog ñu sepp si tamit Kër Tamba du action di ñi nga xamante ni ñoom ñoo ëmb ñu ñuy wax waa groupe TCP Ousmane Badji jiite donte ñëwul sax dafa am tawat yaay moo tawat ñu koy ñaanal yàlla may ko wér yaay boobu tamit yàlla may ko wér ba maa ci boppam ci mën a ànd ak moroomam comme ni ko daan defee. gàmm gi nag nañu wax ne biñ ko commencé ak léegi bi ñu toll bi ñu def nii ren ji nii mooy douzième édition douzième édition nekk deuxième yoo xamante ni daanaka suñu yeboon trois éditions yi moo nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla wala quatre éditions yu mujj yi moo nekk yoo xamante ni tombé na yàlla boole ñu seeg kuñ siy dëgëral ñu ngi siy dooleel di Cheikh Ahmed Tidiane Tandé boole nag ak autorités yi nga xamante ni tamit ñu ngi si dëkk bi ñu leen fàttaliwaale bu tudd lu mel ne que monsieur le maire lu mel ne que DG Souleymane waaw ñun ñëpp wax dëgg yàlla ñu ciy def seen loxo lu mel ni que nag daayira yi nga xamante ni tamit ñoom lañ ko collaboranteel ndax saxaadatul daayira yi nii moo xewle moo organisé mais daayira yi ko ëmb si Balante Kondaa yëpp dañu jóg takku ngir dooleel leen xam nga woote neex na mais woote ñu wuy la dara daaxul te heure bu ñu wootee rek. daayira yi daayira yooyu nga xamante ni tey togg nañ ko si yeneen gox goxaan yi nga xamante ni tey ñoo toggal seen bopp daayira duppee ko Seex Amadu Tijaan Tambadou daayira yooyu yëpp ki ñu tuddee seen daayira si Amadu Tijaan Tambadou dox leen dox leen digal tamit pour ñu fexe ñëw teewee gàmmu te ñu defee ko comme ni ñu ko bëggee dana ko daayira Sengeer Sengeer ñaari daayira daayira Sengeer bu bay na ko ak Sengeer Mori ñëpp teew nañ fi dana ko daayira bi nekk Jaañu daayira bi nekk Pontos daayira Kawur Rikaano Jaatakounda Jëbaanaar macha allah Balantakounda bi ba Kofi teew nañ hmm? yaakaar naa ni bu defee te yàlla tax rek mboole yow ñu doon sàkku ngir yàlla tax macha allah bu yooyu tasee rek ngir am def na ne yooyu ñoo fi tase te li yàlla boole ku mel ne Cheikh Tamba fekk comme muy def te yàlla tax si wàllu daara ak daayira loolu diine moo ko ñor yàlla ku mel noonu yàlla tamit boole ma ak ay xale yu am pas-pas di xale daayira saxaadatul daayira yi ndax boo seetee tuuru daayira ñu ne la yaay njiit bi njiit bi rek tur ba rek nga fa am mais ñu sa gannaaw di sonn wax dëgg yàlla ñu amoo seen fay te ñooñu ñoo tax sa tur di dem donc xëy dañ naan maalik maalik maalik mais ñu topp sama gannaaw daanaka ñoo def ñoo kii war liggéey boole ci mag bu nekk sama wet boo xamante ni tamit ku ma dooleel la di Abdou Khadre Niass mooy suñu mag bi nga xamante ni ku ñu dooleel si wàllu xadara bi mag ñu fuuf mënoon toog fële naan ni def leen mais fu ñu jógee mu jóg loo yëkkati mu yëkkati bàyyi wu ñoo waar bi benn yoon bu ñu xëyee amaana sax moo ñu njëkk xëy ñu jéem ñu wàcc si waaw macha allah autorité yi seen taxawaay benn côté xëy na xëy na xaw ma ñoo xamagul yoon bi xaw ma nu mu tëddee waaye autorité yi ba tey ñu siy góorgóorlu nag ku mel ne monsieur le maire ku mel ne DG Souleymane Ndiaye monsieur le gouverneur monsieur le gouverneur de la région de Sédhiou wax dëgg yàlla def na si lu am solo si gàmmu gi ren gi donc mu nekk loo xamante ni départ am na ñu yaakaar xëy na li si kanam autorité yi tamit daañu leen gën a jege gën a xam ne ñu yëmbatu ba mën si gën a mën a def seen bopp ñu ngi see woowaat bu baax ndax aajo woon nañ ko lool ku nekk xam na ñu gàmmu dafa métti su autorité yi jàppul rek pour mu dem dina jëf donc ñu si woowaat autorité yëpp rawatina monsieur le maire ba ak politiciens yi nga xamante ni ñu ngi au niveau de ba au niveau international wala national sax ñëpp ñu ngi leen di woo gërëm ñu tax bis bi taaru tey ñooñu kenn du wax ba bàyyi fàtte leen gannaaw muy waa action Senghor action Senghor tey daanaka dañ si def taxawaay boo xamante ni te muy taxawaay bi ñuy def chaque année nag ñu def si am si taxawaay bu am solo taxawaay boo xamante ni kenn mënu fu mu tàmbalee la ñu xam ne fu mu commencé la ñu xam rek moo xam ne fu mu toll dañ leen sant amuñu seen fay ñu ngi leen di ñaanal bu baax li nga xamante ni ñu ngi koy mbébét seen xol ku si nekk yaa ko xam yàlla defal la ak parrain bi di waa Kër Safou Tafsir Tanti Ndiaye bu Senghor ñoom vraiment ñun te amuñu seen fay xam nga kii bu la yëgee boo tuddee la rek day fekk nga yëg te ñoom vraiment dañ vraiment dañu yëg taxawuñu ñun tamit ñu ngi leen di ñaanal vraiment xanaa di ñaanalaat suñu magu koñ bi mais suñu mag maire yi tey jàpp nañu si daayira bi bu baax a baax ñoom tamit suñu yaay ak suñu papa nekk si biir kër gi. di jël ngërëm googu ak sant boobu yëpp rek di teg si suñu nijaay bi fi nekk di Ahmed Taban bi dëgg yàlla ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax ak ay njabootu mag képp ku ñu njabootu si waar waar ndax tey ñoo si jàpp boobu tax mu gën a am doole.